أعوذ بالله من الشيطان وجعل بالصفاء والأمان أعوذ بالله من الشيطان وجاد بالصفاء والأمان أعوذ بالله من الشيطان وجاد بالصفاء والأمان بكتاب لكيم صلى عليه بالسلام الكريم إن التلاوة الكتاب المنجي من درر ومن عناء تنجي يبي الذي يدل كتاب ربي يبي يد يوم عسر بعد الخرب رفع من يدل كتاب الله يخلل البسر بلا تناهي بان لكل من له معقول أن وسيلتي هو الرسول بان لكل من لا زاد أن ابن عبد الله ذو القيادة هذا الكتاب ينجذب نف بي يكون خير مرتبب soxna Aida Saliou fi yàlla fi yàgg loolu dëgg gis ne euh, ci bi am na ne dañ ko ca nemmeeku moo xasaay yi moom ci góor yàlla rawatina ci soxna yi ne ñu ci bëri euh, euh, ñuy jàng xasaay te fan yii sax soxna Aida Saliou ci dafa joxewoon ndigal dañuy jàng dim di toll ci soxna mokkal waxtaan ak xam tey liggéey boobu foo leen waaw loolu nag daanaka weesu nañ ko di wéy fi ne ñu ngi ci muqaddamat ndax euh, bi mu joxee ndigal ne daa bëgg 313 soxna yu mokkal wakaana xaqan ne joxe naa ndigal li waaye wóor na ma ni dana ko weesu tey ñu ngi ci 1226 personnes yu mokkal wakaana xaqan ay soxna ay soxna ci soxna yi ay tout tànk mais loolu yombul de jëwriñ mu maanaam liggéey boobu fii biir la yem wala daa am foo ko jëmale âge ci ban tranche d'âge la lu mu dem am na cinq ba ba ba fu mu yem ndax soxna si moom bu la joxee ndigal rek dala ciy jiitu moo la ciy dimbali ndax mooy def ci xolu taalibe yi ñu bëgg ko ci saa si bi mu joxee ndigalu wakaana ñi ci gën a tuuti ci ñi ko mokkal cinq la noonu man dama enregistré 313 soxna yo xamni ñep ay mag la am nañ 16 ans jëm kaw enregistré wat benen 313 personnes. xamni ont mix la daa da commencé ci ay xalé yu am 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans ak ay mag ay mag yu am plus de 60 ans ndax ndigal luy wàccul kenn bitim rew France Italie Espagne Amérique Canada faut mënti xalat ndigal li dafaa yegg ndax bi mu joxee ndigal li rek dañoo organiser wu ubbi ay groupe tuddee ko wakaana un wakaana deux wakaana trois wakaana quatre groupe yooyu benn bu ci nekk daanaka feesoon benn bu ci nekk ñuy dem di enregistrer en trois mois euh, même pas non en deux mois et demi la ñu am nombre trois cent treize yu mokkal wakaana maanaam mën koo wax te duñu ko waaw la preuve en est que taxaw nañ jàng ko cantu ko croisement Serigne Béthio bi soxna si woote woon foofu 313 soxna ñoo taxaw jàng ko ba mu jeex takk te kenn xoolu ko ci te ay gone yu ndaw ñoo koy jàng ay gone yu ndaw ñoo koy fittante maanaam ñoo koy jongante ku tari jox sa morom ku laal buntu sa morom ku laal sa morom Serigne soxna ay dara ndax jëmmi Serigne dañ ko organiser noo xam du àjjuma rek moo ko moo ko yor ndax dañoo dañ ak équipe te dinaa leen ci tudd bu mel ni El Hadj Mamadou Bey Cheikh Béthio Léo euh, jëwriñ Mass Bey jëwriñ Ablaye Camara jëwriñ Alsane ak jëwriñ Sëñ Xaadim dañoo nekk ci groupe yi ñi nekk Sénégal muy dakaar Thiès ak Madina Salaam dañuy dem di leen répété ñi nekk bitim réew ak ñi nga xam ne ñi ngi ci biir Sénégal te jotewuñu ci région yooyu yu ñu jege yooyu par Meet wala Zoom lañuy ñuy jàngee par Meet wala Zoom nga xam ni ci biir groupe yi la ñuy tari bayit du leen raw ku tari ci groupe bi boo dugalee sa benn bayit bu ñu la sawee ak benn bayit nga dugg tari kenn jël la corrigé ñu joxaat la sa beneen bayit noonu lañ koy toppee ba bu matee ak lim nga boole lépp tari ko boo taree bu fekkee newuloo fi vidéo ngay def tari ko ñu gis la nii nga tari ko mu wër ñu validé ñu dem kenn ku ci nekk du njàng mu gumba la ko jàng déedéet njàng tarara déedéet da koy jàng jàng mu wër soxna si li mu bëgg mooy ñu jàng ko njàng mu wër ba kum ci fëgg 4 heures du matin nga mën a tari lu mu la laaj ci xasaay. Hmm. sax. déedéet ndax mos naa xew ci. déedéet déedéet loolu mosul euh, am soxna si 1000 la wax nema waaye dana ko weer ndax daa wax 313. ne ma képp ku am mokkal wakaana xamal ne ci biir 313 la bokk ñu dem ba mu toll ci 1226 soxna yu mokkal wakaana xata loolu musul am dans l'histoire du musul am Serigne soxna la jagleel loolu moom jëmmi boppam sax loolu da ko da ko da ko ko woon boppam ba ji fi te te taxawul ci ñi té néna day wëy sas wey jeex ak lénen luddul sas wi ñi ngi mokal nuru daari ni ñi ngi mokal jaalibatu marah ñi nga xamni jeexal nañ sas bi ñi ñi da leen jox ndigalu nuru daari ni ku ni ku melni soxna obay ties mm-hmm. soxna da ko ni digal na la nga mokal nuru daari ni bis bu set day tari par par vocal yónnee ma ma déglu ko joxe ndigal bu don 100 beuy la yow ci yow day melni ñetti beuy wa ciofel la yefi du ay non du meuna jang wala meuna parkiriser ci yeesal gi la xewé day ciofel cofeel lañu koy defee. ndax day tekki kon euh, fonk. Mhm. xasaayid bi Sëriñ Tuubaa waaw euh, soxna si nag man de xaw ma sax fonk waaye de mel na noo xam ne ci xasaay ji barke Serigne Saliou Mbacke man ab dong laa yàgg naa ci daara ji dem naa dikk naa gisuma ci àdduna ku ko gën fonk xasaayidu Serigne Touba yi hmm. ci ormaal bi ci téewin bi ci ndigal li ni mu koy yeesalaatee ci ni mu bëggee taalibe yu mokkal ci pas-pas bi mu ci am ci ni mu leen bëggee sax bu gisee jànkatu xasaay bi ni mu leen bëggee ndax day ndigalu sëriñ Béthio te moom day yëpp moom day sëriñ Béthio الهدى والعفاف